amati mbégteeg euh, bànneex diggante yéen rek euh, ba tey sa la gën a fes mu doon euh, victoire ba nga xam ne ñii di rek ñii di pouvoir bi di Ousmane Sonko daal di nas kay am ba tey rek mi wéy di am ay réaction ñu xamante ne si ne ñoo xam si opposition bi la wala sax ba tey ñi nga xam ne ñoo bokk si ñoom di rafetlu rek la nga xamante ne si ne moo di la daal am ki si mel ne ki nga xam ne moom moo di la Aminata ture daal di génn nag rafetlu def rek ab bataaxal rek sa page Facebook am di rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne si moo di élection yi rek ñu daal di jàll ten am sa rek ab majorité wala sax victoire écrasante xamante ne rek ne rek euh, Sénégal yi daal daal di leen génn bu baax a baax daal di dem rek li nga xamante ne si ne moom moo di daal di dem euh, wate ji rek joxaat majorité ñi nga xamante ne si rek comme niñ ko defee woon su élection présidentielle jox leen rek lu mat sekk ba tax rek ñu daal di mal jot bopp réew mi noonu lañ ko defeet si élection législative yi ba tax rek ñu daal di jël raw gàddu ga am rek loolu bëgg foofee rek sa Assemblée moom kooke di Aminata Touré di ko rafetlu bu baax a baax teg si nag di wax na rek jamono ji la kon la sa daati des rek sénégalais yi ñoom waruñu leen a gën a kore ginnaaw nga xamante ne si ne rek daati nañ leen jox loolee kon nag la sa daati des moo di rek liggéey tabax rek Sénégal bi nga xamante ne si ne moom la ñu bëgg beneen Sénégal rek daat koy jëmale sa kanam te loolee rek mooy li sa daati des kon nag yaakaar na ne ak nguur gu bees gi danañ ko daati jëmbal daas koy amal mu doon jub jubal jubbanti Sénégal vision 2050 ñu fas teene rek dëgmal procès boobee rek moo si daa si des ak victoire bi nga xamante ne si ne daati nes ka am démb rek c'est le 17 novembre bi nga xam ne sénégalais yëpp rek ñoo daati génn ji wote ji pour lak loolee daati mën a am ndaxte nag am majorité lan doon ñaan foofu Assemblée daati nes ka am kon nag la sa des ren rek la mu doon liggéey jublu rek si jafe-jafe Sénégal yi fas teene ka rek saafara ba pare lijjanti li nga xamante ne si rek mooy lépp lu fi daati la ñu daat koy lijjanti nag si noonu it Aminata Touré ma nga xam xamle ne sax lii daal daanaka mooy wane ne rek jaxatal euh, politique bi xamante ne si ne rek mooy bi fi nekkoon maanaam rek di rey ak xaste rek daanaka loole daal dafay daati jeex ginnaaw bi nga xamante ne si ne rek am na majorité foofee sa assemblée nationale kon nag système ba fi nekkoon mën na ne rek dafay daati jeex ba euh, faw